nuun wal qalami wa maa yasturuun kon seen liggéey bi liggéey bu rafet la xam ne da ngeen a dox ni mm-hmm. ñun fekk nañ ñu gis jàngoro ji mm-hmm. eh, te it kem liñ ci mën a dox ci faj te ji daal yenn sax ba alxuraan daal mm-hmm. bu ne diw mokkal na rek ñu ne diw mën naa bind muy loo xam ne firnde la lii ab liggéey la boo xam ne ku wax liggéeyal alxuraan yàlla rek mu am sa pay ndax dem alxuraan nit mën a su ko jàng njàng mu wér te mbindu bokkut ci ñu mel ne ku si koy mokkal mokkal gi wér te mbind bokku ci ndax it mbind mi moo tax ba tey bi mu wàccee dara sawut ci alhamdulilah dañ ko ñaanal bu baax sëñ nga xam ne waa ñu ngi koy waajalaat ci ci ci weeru koor wi di ñëwaat ah, nga xam ne jamono bu ne rek ah, da koy yokk boo ëllëgee ñu fexe ba mu doonub kaamil yaatu bu baax a wax lépp nag ñu am si ngërëmu Serigne Touba te jàppale la si liggéey bi ñu sant yàlla bu baax a wax amiin jërëjëf di sant yàlla yi tamit ci seen ñëw gii ndax aay bi njàng yàlla moom garanti na ne moom mooy wëttu alquran waaye yal na yàlla boole ci jumtuwaay yi nga xam ne ci ñoom la koy wëttoo te seen liggéey bii ci loolu la taxaw waaye dañuy seetlu lu bari ci xale yi danañ ko déglu mu tari mokkal bi rafet lool waaye boo koy testé pour war koo dugal kalaas du passé CP ce lu tax daanaka du mën a bind xale yi dañ leen di saxnu dañ leen di sarti alquran ji rek da nga gis xale boo xam ne du mën a bind dara dara soññu ak gën a bëgg liggéey bi gën koo itteel rek. ak bàyyi fi jeexit ndax li jeexit. Hmm. waaw man bu ne ci tool moom jàppale. ngir gën a mën a bàyyi bàyyi mu rafet mën caa jëriñu mën cee jëriñu ah yàlla mi tax rek moo koy am. sant nañ ci jéego yi bu rafet di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mi tax ngeen di ci sonn ak ki ngeen ko àndal muy Serigne Seck. ak njaboot gi yëpp yàlla boole leen jàppale te yeggale seen yéene ndax bu fekkonte ne mbind mi bi téere bu njëkk bu ab dong dalee boo seetee ba ba muy wàcc dañ koy bindal ci allo bu wàccee itam di gën a bari woy juróom wu jigéen leen xamoon fii ci mbaakool wala kajoor lenn ci bar kajoor way juróom wu jigéen mooy jaay am xaram wala mu jaay lam ma am dem cim kaang bindalul ko ab kaamil bu rafet ñu yóbbu ko ca daara ja mu di ci jàng boobu ba muy mokkal waaye bi mool yi dikkee itam taxut nu bàyyi mbind mi ndax léeg-léeg nga dem ba mu yàgg nga ne mu kaamil yi ngay gis léegi li gën a bari ni ñuy ñàkk a woowee ak beq gi ni nga bëggoon gone yi di ko defee noonu te mu xaw a jafe waaye dangay gis ne bis boo ko bis boo xalaatoon ne nañ nañ nañ soppi mustawa bii nit ñi doon mën a alxuraan sax day dafiy jóge àgg nañu nag ci dëkk maam borom Touba xaadimu rasul dem ci ay daara yu bëri bëri njàngum alxuraan ak bindum alxuraan ci dëkk bu sell bii kenn naattablewu ko moo tax sëñu sëriñu daara ya nga xam ne fekk nañu leen fa seen kàddu sore lool ci sant ndongo yi ci seen liggéey ndax ñëpp xam nañ ni sëñ Touba xaadimu rasul fonk gi nga xam ne fonkoon na ko alxuraan foo ko nat weesu na ko mbokk yi dañuy dem nag ba Fuuta fekki daara alaaji Cerno Samassa mu di nag daara bu ràññeeku ci tund ba kilifa feeñal seeni mbégte liggéey bi am solo lool te ndongo yi liggéey ko ci ndimbalal c nekk na lu ñu biral ci seeni kàddu fa mashkurun antum wa alayta shukr fa nahnu kadhalika nashkurukum li badlikum juhudan balighan fi intaji hadhihi shajarati al mubaraka hiya shajaratun asluha thabitun fi lsamai thabitun fi l ardi wa faruha fi lsama wa bifadlikum wa bifadli qiyaamikum wa ijtihaadikum wa barakati ma taqumuuna bihi li kitaabillahi inchaa allahu nahnu mutayaqinuun wa mutaakiduuna bi annakum satuhassiluuna ala natijatin inchaa allah ala natijatin kubra wa ala natijatin uzma marhaban bikum من ثمرات المسابقة والله والله والله هناك في الأسفل كيف كيس لا بأس لا بأس إن شاء الله إن شاء الله لا تجلبوا أنفسكم أنا سأمضي الآن ولا نشكركم كثيرا بعد سعودي إن شاء الله بارك الله فيكم سأطالب إن شاء الله وأطال بقاءكم yi nga xam ne jëlee nañu ko ca daara Alaaji Cerno Samassa nekki noonee nag ñu indi leen kàddu ay seede yu bàyyee ko ca daara Alaaji Cerno Alioune Thiam di daara nag bu ràññeeku foofee ca tund ba kon kontaan nañ bu baax ñoom ba baax a baax qur'ana noon fuɗɗinoma yeeweete nee na nag nag weetoon na koko mayno haalaaɓe nee na dafa deewoon ba mu jeex eh, tak somin jiino onon ɗum ɗo ene onon gummino ɗum ɗo waaye bu ñu gisee société bu mel ni taxaw di ko dundalaat eyyi eh, ɗum min belto heen kon loolu dañ ci kontaan bu baax a baax ɗum ɗo weydi nee na lii géej na depuis Serigne Touba li nga indi fii tey ɓiɓɓe Sénégal naa bindi ɗum si doomu sénégalais yi ñoo bind lii min fuɗɗima wursude hankkadin léegi dundaat nañ nag min paami aduna o ndehe gasani taw nee na ya xam nañ nag adina bi des na saabi doo aduna tan ko ɗum ɗo ɗum tan jagguiɗo aduna bi li tax demul rek mooy lii so gasi aduna o lii bu jeexee rek adina bi jeex na tan jagguiɗo aduna o kon lii rek moo ñu téye fii tey so hoynama lii buñ ko tuutalee walla ñu ne nenal ko fitikaldino hoyi moye fe adina bi lañ lañ sa yi teddinowo ɗum ɗo moye bo gisee ku koy jël nag di ko yëkkati si kaw on sa teddinanima alam andam poɗɗa teddinde wo teralul kooku xawma ko ngay teral yóbbalub daara yi ci li tukkee ci résultat jogante yaatal mbindum alxuraan te ñu amal ko daaw première édition ñu ngi koy wéyal nag ci kërub daara yi daal di taxaw nag ca diwaanu Kees dem nañu ci ay kërub daara yu bëree bëri te fu ñu àgg nag indil nañu leen ci ay lim lu takkoo takku ci ay téere yoo xam ne ndongo yi ñoom ñoo ko bindal seen bopp mbégte ba nga xam ne feeñ na ca sërañu daara ya foo ko nat weesu na ko ñu taxaw njaasaan doy na ci seede parce ngeen ko defee da ngeen fi ñëw ah kër ma góorgóorlu waxtaan ak yéen ngeen xam ne intéressé na du lu ngeen fi wut si ni ko waxee rek lu ñu am alxuraan moo ñu ko may mante tamit ragal naa ni loolu loolu laay dund. ñun ñu ngi liir di résider mais binduñu. Mhm. muy defu ñun ñëw ci seen xale seen mbaax daan dëgg la te aussi commencé woon na bind na. waaw loolu la moo xewoon. mais a mhm. am contrôle aussi da su ko kii mu na camion bi pare. Mhm. mën na ko recopier sax. parce que foo mu koy defee doo doo ko xamaa. Ah. mën na jël recopier te recopier du du du du du écrire. mooy seen mémoire nga utiliser ak sa loxo. mu amaat beneen taar bu nekk si biir si biir presque concours mooy calligraphie dootul écriture rek de mais calligraphie mooy mbind mu aw yoon bu rafet waaw nga xam day mel ne da koy aar la écriture aar la aussi écriture am na yëngu-yëngu foofu mais day day day feeñal personnalité dof soo ko bindoo rek xam ne dof ku complexe su bindee rek xam ne day complexe ku bëgg wàcce boppam su bindee mbind ma day wàcc soo ko soo ko tracé wu bëgg boppam kii mbind ma su sawee lool personnalité bu tuuti lay doon mbind ma su ëppee lool personnalité bu ëpp lay doon mbind dem nañ ba police da koy utiliser pour xam ki def crime amatul benn enseignant bu buy jàngale mbind mbind ba ñu jógee Njaasaan dem nañu Tiwaawan fii itam noon rek la demee mbind ñu koy def ci rasmu usmaan yi dégg nga ci lañ koy def su ko defee kooku bu fekkee ni jël na première neexalam dina mën a nekk ci juróomi million waaw keneen ki war a nekk ci ñeenti million ak genn wàll ñetteel bi war a nekk ci ñeenti million loolu nag mën a mën a mën a saytu mbind mi war ko mën a toppatoo ni ko war a toppatoo waxtaan nañ ci ba noppi gërëm naa leen ci sa tur jaar piir jàll si la draman ak itam bopp ci la béyti ñu ngi nag ca daara muxti fii itam ni ngeen ko gise tiiri yi nga xam ne teg nañu ko ci loxo kilifa ya ngir ndongo yi mën ceeb jàng alxuraan ak di ci njàngam bind alxuraan nekk na lu ñëpp rafetlu ba ñu jógee nag Daaru Muxti dem nañu Fass Touré واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه تعد عيناك عنهم di am mbégte ak kontaante ci tànk yi ngeen dox si te muy tànk yi soññee ci ñun tànk soññee la bu baax a baax ci ak alquran ay wet yu bëree bëri la wet gu ci nekk dañ cee war a jéem a góorgóorlu bu baax tey wet gi nga xam ne nii wet gu am solo benn wet ëpp ko solo te mooy bind alquran mbind moo xamante ni day wow koŋ te duñ ko geesu doon lu am solo tey doon loo xamante ne bii Eh, bokk na ci turaasu mag ñi nga xam ne daanaka eh, nañu wax ne réew yu ko dese bëreetul. dugg nañu nag biir kokki di daara boo xamante ni kenn dootu ko wone ci Sénégal ak ci bitim réew moo tax liggéey bi fa mu àgg ca ñoom ci seen i biir xol kenn mënu ko wax. am kontaante ak mbégte lool ci tànk yi ngeen dox. ci turu sëñ Maxtaar Naar Lo mi nga xam ne mooy jiital daara yi kokki ak njaboot gi mu bokk seqal liggéey bi yëpp nag. ak ñi ñi nga xam ne ñoo ciy yëngatu lépp xam ne lii rek moo jar a lii rek moo jar a def yal na yàlla fay leen sëriñ yal na yàlla fay ko yal na yàlla gën a dëgëral daara yi yal yàlla gën leen sàmm yal na yàlla gën leen a aar yal na yàlla gën leen a wattu. ba ñu fa jógee dem nañu ci ay daara yu bari bari ci biir Louga. di kontaan bu baax a baax a baax si liggéey bu rafet bi. nan sàmm li fi mag ñi bàyyi woon. waaye tamit ñun tamit nan sàmm li fi daara bàyyi woon moom maam dara da siy jiituwut maanaam lii ngeen xamante ni sii mooy mbindum alxuraanu karim eh, lii ngeen def nii man yéem na ma lool ndax gis gis nañ ba tey jàngale alxuraan kon nag ñett yi nga xam ne si mooy tax ñu ni lii alxuraan la day dëppoog luga arabiya wala bi wajin dëppook nax wala bi wajin ba pare nag dëppoog rasmul quraan nga xam ni ko liggéey bii bu ngeen ko deful fexe ba xam niñ bindee alxuraan parce que bañ nañ ko ba alxuraan tuddewuñ ko tuddewuñ ko euh, mbind rasmu rek la ñuy wax dañ ko dessiner. ndax ki nga xam ne jàng na alxuraan ba noppi bind ko euh, li ko alxuraan di mën a muñal ci ak gëj mooy mooy mooy ko ki nga xam ne jaarul ci mbind moomu kon mu doon lu am solo loo xam ne. mooy tax alxuraan mën a dëkk euh, jéego yi ngeen ci ci dox nag ñëpp ngeen ko defal waaw euh, da ngeen cee wuutu euh, maanaam taxawaay bi ñëpp la waroon. ginnaaw loolu nag mbokk yi jaar nañu ci ay kër diine yu bari ci réew mi niki njabootu Laayeen njabootu Omar yeen ak kilifa yu bari bari ci biir réew mi mbokk yi lii nañu leen andiloon ci reportage bi aju woon ci jogante yaatal mbindum alxuraan jeexital bi nga xam ni def na ko ci daara yi nga xam ne concours bi nga xam ni compagnie Serigne Seck senegal andi na ko cim réew mi tax na ñépp bëgg mokkal alxuraan ak rawatina mën ko bind ci bind mu nag moo xamante ni buy teey la te yéeme lool yal na yàlla def suñu borom subhanahu wa bind bindkat yi kat alxuraan gën a yaatu ci réew mi ndax ñoom kat ñoom ñooy bijj liggéey bi nga xam ni mag ñi liggéey nañu ko ci réew mi yal na yàlla dolliñ ñoom mag ñi seen leer te taas ñu ci seen barke maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun